mboolem ñëwee ca ci ñoom ku ko ci ca gaaña ak ña mujj amul ci ñoom ku ko ci mad am kujju maa ibra góoru góor ñi baajo faalu sakkal ko am kem daaraam ni jaaloo muy natuwaa yu gaayi nam mu yàlla muy yam waay bi kenn du weesu xalla kuy sikki saak suuru faal say say la kuy weddi mbootum yàlla kay yéefar kuy sikki saak kësuuru faal say say la kuy weddi mbootum yàlla kay yéefar la nawlem amul Cheikh Ibra kenn du xand ci pëndi jéegum waaju ko soobu fënd kenn mësula gis ku mel ni moom ci diine amul ci biidaani ak soodaani ab sañ-sañam mëseefu ko sañaale ca aadama muhammadul kamaali lim sëf ci mbóot ba daat ni yomm kuñ ko sëfoon ca góor ña doo xam damm kenn mësula gis ku gàddu lii mu gàddu te mboole seen waliyu yang ni joddu te alkuwuñ te sankuwuñ te réeruñ maa ibra faal mook ñi ko topp sooyuñ seex ibra faal gur ñépp yéem dayoom ba njamal bu mag ndaw mën la laal jëgën ba amul ku lamboo martabaam ci yàlla tiiñum ba diis na góor ña góor góor la cey joojawaay ëw joojawaay maam sawru lëmbul ca yàlla ëmb na xayrul xayru ne sëpp pusow maa ibra faala yéeme kenn mësula gis wi melokaan moo tiime mooy ngëm gi tax nu gëm di dox ci dëgg waaju ko noonu di nga rus ba sëgg mooy ngëm gi tax nu gëm di dox ci dëgg waaju ko noonu di nga ne ku noonu làmp bon na ku weddi ngëm nu muy demee aljanna ndam yàlla ne ku noonu làmp bon na ku weddi ngëm nu muy demee aljanna mooy nattuwaa yu ngëm yi ngëm mbootam la ku gëm na xam ni xoromu suunaaram la moo wane ngëm moo jara gëm mam lamp mooy ak waay bi gën a jubu moo jamp la muy defal buur ba mu mat ba mooti te jaariwul ci xall wi ñu xotti ku mën na def ku xam na wey waa ngoog maa Ibra Faal góor jotiwul fa muy toog diine amul ku mel ni sëwru faalu moo gëni góor na ku am wusoolu kenn mës la dégg fenn aw doxinam mooy royu waay bu jubbi ngir jëfinam faal siidi rijaalullaahi abu rijaalullaahi sirurullaahi seex ibra faal yow rekk jëf balaage mboolem kamaal yu mag yi yaa leen jaggi la jëf ba dab ko loola na mbuutam ma diis na góori ahlu sunna Cheikh Ibra Faal nuuru rijaalu laahi tawhan wa karhan daa'iman lillaahi Cheikh Ibra Faal kanziyatul ilaahi nuuril huraa zirru kamaalillaahi Cheikh Ibra Faal rahmatu rabbil aalamiin سيدنا إذا ما سيد الأولين سقيب رفال دليل سات الله باب الشيوخ سور باب الله سقيب رفال كمال نور الله ممسيدي فالإبراهيم قل الله شيخ إبراهيم يا دي قليل الله fal ku la gantu mooy hadu wallaahi may Ibra Faal xol ko gantu dee na ruuxam gën lu nëb dem aljanna maa Ibra Faal xol ko gantu dee na ruuxam gën lu nëb dem aljanna ku noonu waa yi yàlla la juuna ruuxam nan posan daanu ci kam bi lëndëm mooy ruu mooy bakkan di jàmmi nit ñi ku been mbirum malaaka yang koy ŋàññi mooy taaru diine ku mën la gis taaram bi sëb ci suuru faal yaaram moo tax borom tuubaa mi ëmb diine jiital mbiram ma ibra faal du cuune ku yàlla dul xamal du xam la fàddu du xam la gën Seex Ibra nee na joddu jëmam a gën waxam gën jëfam gën yoonam gën ci yoon yi topp koo gën mbiram a gën yoon wi mu xaaj ji sësëna rikk ca yàlla mooy yoonu alal janna way mujj yépp paxam ni mbootu mboot la way jiitu yépp paxam ni njiitul njiit la ña jiitu moo jiitu ca ñoom ba njiitu yowmal qiyaam kum rëmbul nga juutu ña àgg moo àgg ca bañ agsi te lii ma wax biir na ku tabbi arsi way màgg yay doxantu foofa xam nañ si xibra faal ku manke rek a koy baña way màgg yay doxantu foofa xam nañ si xibra faal ku manke rek a koy baña guddi yey doxantu foofa xam nañ Seex Ibra Faal ku manke rekk koy bañ ku yëg yëgam sar li nga Seex Ibra ku ko yëgul loo mën di yëg du saraay ku gis-gisam we da nga gis lu làqu ci Seera Faal lool ku ko yëg du yàqu moo gën a xam yàlla ko yàlla bind moo tax mu xam dam yàlla miinu gand ma ibra faal wujjëm amul ca awwal amul jaax sakk na góor ñu këmmal sakk na góor ñooñ fa ñu àgg yàlla néewaana góor àgg fa jëy maam xàllaay yaa ngi ni jàkk yàlla ba jofaalu yaa ngi ni makk njool ma yaa ka njoolu yaa ngi ni xaj ji bamba mën ngaa xoole yaa xool ba gis dam yàlla am nga doole bu bamba doon gaynde nga doon bu ñum ya yor ñetti yéere sa xame dégg ji ku gëm borom tuuba koy gëmaale mbaalu ko mooy sa gëm gi dun ko faale mooy rabbi ndëppi say xinal xadiimi maami sëriñ sax jëmbu faale yéeme mooy leer gu gàddu leer ba leeral sëpp سفين أرض وسماء دكب فيل بيت كل فدك جملا فبقي دام كل فسين سل lépp lu ab jaam di jagoo ba jariñu ma ibra faa lay loola jam ñu xamuñu ma ibra ne nit dana lekk aw jën wu mu xamul mool wa ko napp mooy aw cax la cax wu góor ña ñoo koy tekki mbaate nga digg ndi yu góor ba sekki góor ñaa di góor yi yàlla yeyi wëndeelu ba sidratul muntaha yi jëmbeelu te lii ma wax bir na ku àgg foofa mbaate gisu xolam ni màgg foofa yëg ni mbootama mboolem ñi namm yàlla ñeng ci suufam malaaka yeeg jinne yi dañ koo sopp ak jund lay xaalibiina yëpp nga ne ni yàlla yëpp moo ko gaddu maam lamp wéet ma ibra faal la faddu moo gën a xam moo gën a am moo gën a mën mooy taxa xam mooy taxa raw mooy taxa gën yàlla ñu daam jindi ci suuru faala dalaalu kaw nu lay kun laala te bamba laq ñu ci xaji faala jamaalu kaw nu lay kun laala yal nañu bamba sàmmloo mam lamp mu duñu sàmm duñu jox ñuy namp mooy sàmm boob juróom du yooyu durur le duñ ko féeru li seera faa la gën le yal nañu xaji faa la gën di gindi ci jëmmi jëmmam jëmmi borom barak bi بجاه مجتبى نبي طه بسر لا إله إلا الله بجاه مجتبى نبي طه بسر لا إله إلا الله دب جدام مدق جب يلا تد تورم مغن جي تد يلا borom Tuubaa di tudd turam màgg na muy dëgg tudd yàlla mboon ma àgg na ku bëgg a sell deel zikkar turam wi zikran kabiran tey xalam melo wi di ko zikkar di zikri wa tafakkuri ku ko sa waat naa ni dootu la sori niw kaamil mooma dey turam wi ma di ko dikkar ba janoog meloom gis naa jëmmam ji dégg wax ja wax ko wax ma moom la ma wax mu ko waaye du tee ko namm naa borom Tuubaa yaakaar yi bëgg naa la waaye du tee mën a ko namm naa la borom Tuubaa yaakaar yi bëgg naa la xam nga ni man jooy cofel ca laa sax sa di jooy sa bët di yaa tax di leen di kar turam bi leeram gi buy wutajul lu xamal ne xam gi te wax ak a ay njortu xaqul yaqiinu laa ci am bi fartu te li ma wax ak a soreek ay njort xaqul yaqiinu laa ci am duy faratu barki borom